convoqué corps électoral ak loi bi nga xam ne jaloog bi li mu proposé mooy ñu amal élection yi ñaar fan ci weeru juin tey tamit ñu yokkaat mandat président bi nga xam ne ñaar fan ci weeru avril la waroon jeex ba mu toog fi nag ba jébbal leng yi ki nga xamante ne moom lay wutu waaye bu ñu xoolee jaloog bi dafa mel ne day ubbil tam ñi nga xam ne ñoo di candidat yi conseil constitutionnel dàqoon. ñu mën a ñëwaat ci li nga xam ne moo di candidature yi ñu saytuwaat seen ay dossier de candidature li leer nag moo di ne yooyee dialogue bi proposé bu dajeek ay décision yi nga xam ne conseil constitutionnel jëloon na ko dafa mel ne dañuy jonjonte àndul ndax kat li ñu annulé décret présidentiel bi nga xamante ne moom moo convoqué corps électoral ak loi bi nga xam ne mooy yokk mandat chef de l'État bi nekk na nag obstacle yoo xam ne bu ñu moywul faw nag ñu jaar ci maanaam muy ay gàllankoor candidat yi nga xam ne nag ñoom ñoo war a jogante élection yi ñoom wax nañu ñii di sage ñu bàyyi xel te gis ne président daful dara ngir sàmmonte ak date bi nga xamante ne moom la ñu fixé ngir élection présidentielle ñu war ko amal laata le 2 avril ñoom ñuy ñaan conseil constitutionnel ñu jël ci dogal fii nag conseil constitutionnel di jël décision ñi nga xam ne dafa mel ne ay bricoleurs lañu maanaam dañuy taf yëngal état de droit. ñoom war nañu xam ne constitution code électoral ak clandrier républicain ak mandat président nekkul lu ñu war a waxtaane kenn waru ko négocier ba di koy waxaale dafa doon yoo xam ne mooy dëgërlaayu état de droit ak république ndax bu ñu laalee yooyu nga xam ne moom mooy bànqaasu société démocratique dafay yolomal lépp loo xam ne liggéey nañ ko ci wàllum yoon ak ci wàllum politique ci dëkk conseil constitutionnel nag war na bàyyi xel loolu ba moom tamit mu taxaw taxawaay bu mat ngir ñu sàmm état de droit ak yi nga xamante ne moom moo laytaay institution yi ci société boo xamante ne ay crise yu gën a doy waar ci wàllum falum njiitu réew mën na ko am